gis nga mor sab jàmboor nit ki da koo moomut nit ki xotti six mètres am di nga ñawal ko cinq mètres cinquante téye cinquante ba moo xam nga njaxas ko di jaay mo xam nga jaxas ko sa doom ko da ngaa bu ñaw bi boo koy libéré nga jëlaale morsa bi ci nekk defaale ko ndax mën naa moomaate beneen kippoo ci këram indi ñawal doomam moom it yow nga ñawal sa doom bàyyi bàyyi doom yi jàmm ko ifi fi sama bokk téere yi ah. xam nga moo peinture kat yi nga da nga gis ko mu des si nga yóbbu si ba yóbbu des si moom moo ko da nga gis peinture kat bu ñuy ñaan may ma si woo moom moomu yi yow mi jënd si yi ba nag fay ki lay yaa moom say si woo waaye fi ne kii peinture yi moomu ko dala ko war a ñaan ba nga may ko boo ñawalee nit it ba noppi ndax ginnaaw bu manqué boo jëndee popeline yokk ko bu ñëwee da nga ko tiise bi matu puul dama ko def popeline wala dugub comme jëlal dagg yi da roofaale ci na ko morceau bi képpon bi ci la desoon bu ne la noo gardeel nga téye bu ne bii de xanaa lu ma ci dolli woon nangam ma mën ko ñëw sama doom nga ne ko boo ci defoon cinquante wala nangam ne mu batub xale waaye denc ko sa ron sa turwaal na ci yàlla ba mu kii nga dajale ko ñawi jaxas loolu loolu dox loolu leen di bàyyi na ngeen ko bàyyee ndoo tey ji association bi na xool événement sàngam de diw machine simple la yor ñu association bi nañ jàppale diw ngir ma am machine nangam diw sàngam am na problème sàngam nañ ko jàppale diw am na nangam ñu jàppale ko loolu mbooloo moomu la lislaam bëgg mbooloo moomu la sëñ Tuubaa bëgg te sëñ Tuubaa moo ñaanal boppam yaa rabbi ijaalil muridina maa fii xisnaka laxsin wa samlaj maa gis nga kuy dox ngir mbooloo yi ànd yaa ngi ci ñaanu sëñ Tuubaa googu waaye toujours na ci lii di jiitu amul nag mbooloo mi ñu naan kii ak li bëgg ëllëgee ñu ne woote nañ fii léegi waa kuréel bee nee na fecc bëgg waa kuréel bee nee na dañoo bëgg làmm déedéet lislaam ngeen koy teg yalla gërem leen li ngeen bëgg ngeen am mu egg fo leen ko yoto lu leen ci jaaxal ngeen laaj ñun diine borom xam-xam yaangi fi bu nekk am nangam ak nangam lu leen ci jaaxal ngeen laaj ñun diine lu ci diine bañ ngeen bañ lek doa wax li sama waji waxon waxoon léegi doo ami client gis nga gis nga teer metti la mu noble metti mu barkel metti mu doy waar fi ne néew na ci gaa ñu baax ñu ko jarul ci téye te fi ne seetal suturaal ab jullit fi ne yow yaay ñëw ñu fay la sa xaalis yaa ko moom waaye fi ne col gi ko nit ki col ba yaramam muuru yàlla dala ciy fay fi ne waaw dala ciy fay suturaal gi nga suturaal jullit bi fi ne moom moom tiiseem fay la ba noppi nag yàlla di la fayaat ci ëmb gi mu ëmb yéere yaram nag te ji boo taraxlu laay woon wala nga yor piisu kese teg sa bopp naan yor naab jasineer du tax kon na ngeen ko fonk bu baax te jàpp ko boo leen di natt na ngeen xam centimètre bi gis nga un centimètre bi ngay téye ci sa baaraam mu des dix centimètres yu ne dix centimètres des koy laaj ëllëg koo wax yaar na doon quatre vingt koo wax mètre na doon un mètre papaline original laa lay jëndal cinq cent lay jar bu ko jëndal foo deux cent cinquante wóor na Serigne Touba ku def li mala wax bo doon xey di ñaw ben bubu kep dana barkel ba nga mujj di lo ñeneen barkel gi rek am solo barkel gi dong mo ci am solo barkel gi dong serigne mbacke soxna lo dafa am ku ma sa ñew nako ko man ab maçon laa sëñ Mbàkke na nako loy ñaw loy loy loy defar da ci fonce gën a fonce ndax bâtiment bi nga tabax ci kaw ñepp diko ko séen ngi jaay sa bo way fonce mom yalla yàlla yalla mi ko def sul ko ya xam li li ne ci fonce parce que boko ko ay keno yu dëgër kuule woo ko kuulaas bu baax bu fond ba yàq kii bi mais boo defaree façaatu kër gi ba ku fa romb xemmeem la te fekk biir ga dara baaxu ca amul njariñ kon ginnaaw nun ay téyeer lañ nan fexe ba mel noonu ci jëf bu ñu ko defee rek lu ñu bëgg danañ ko am asalaamaaleykum wa